asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala waa Mouslih TV maa ngi leen di ziar di leen nuyu di leen uh, ziar yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm yàlla mi am jàmm yàlla leen yàlla jàmmal man nag maa ngi tudd uh, Mamadou Cissé seño di réalisateur uh, di yëngatu ci wàllu théâtre maa ngi nii tey si Mouslih TV fas yéene waxtaan ak yéen. waaw weeru koor wi ni ma ko préparé comme jullit ñëpp parce que yàlla moom moo nu ko digal moo ne farataal naa ci yéen koor comme ni ma ko farataale ñi leen ci jiitu woon euh, noonu laa koy préparé comme ñëpp di ñaan yàlla yàlla euh, yóbbu ma ci jàmm ak jullit ñëpp ñu tàmbale ko ci bismillahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ndax koor ñëpp xam na njëriñ li nga xam ne moom la am kon yaakaar naa bu ñëwee te muy ñëw benn yoon ci at mi ñun ñi nga xam ne ay jullit nan war nañ ko préparer bu baax a baax ndax ay xéwali kase moo ci nekk di ñaan yàlla yàlla nangu ne lépp lu nu ko ci jaamu ci mbaaxam ci yërmandeem en tant que effectivement effectivement parce que euh, ñun ñëpp xam nañ ne weeru koor li gën a dundal weeru koor ay sketch ci la bokk sketch théâtral yoo xam ne dañu koy jouer di ko yóbbu ci télévision yi ngir bëggal ci ñi nga xam ne ñooy aji woor yi maanaam mu nekk di leen wettali ci weeru koor wi ndax ñëpp xam na ne weeru koor xiif bi metti na trop trop trop pour dindi stress beeg yooyu ci lañ préféré ñun nu xalaat ne war nañ see def ay mbir yoo xam ne dina tax jullit bi e, dina mën a ànd ak kooram te du ko yëg na mu ko war a yëgee carrément donc loolu la moo tax ñu ngi koy waajal bu baax a baax di ci def lépp loo xam ne ne suñu kenn lay kàttam la ba nga xam ne dina dëppook li nga xam ne moom la chahru ramadan laaj waaw ay sketch yoo xam ne yu thématique lay doon yoo xam ne préparé nañ ko incha allahu rabbi bon yàggatu dara incha allahu rabbi dinañ ko gis ci écran yi dem soob na yàlla waaw loolu oustaz dafay nekk biir mu am solo loolu damay wax ne responsabilité partagée la lu tax responsabilité partagée la mooy ki nga xam ne moom mooy scénariste bi moom moo am idée indi thème am bind scénario am ne lii laa bëgg nu jouer ci koor gi mais toujours bu indee scénario dafay laaj discussion laaj waxtaan kenn ku nekk indi xalaatam maanaam xelul kenn ki rek du doy looloo waral des fois dérapage yi am yu bëri foofu lay amee dañuy xool nu mu gën a neexee nu mu gën a comédie rek ñu joué ko noonu ba loolooy indi nag des fois dérapage yooyu ngay wax ndax kenn bëggul di saboter diine islam ndax weeru koor loolu taxu ko jóg comédie bi ñu ciy def c'est pour nit ñi reetaan parce que théâtre ñëpp xam nañ ne théâtre c'est éduquer et divertir te yaakaar naa éducation ak divertissement kenn mënu ko dindi ci islam léegi nag nan nan koy defee foofu la problème bi nekk foofu la uute bi nekkee foofu la concept yu wuutee moom moo waral yenn dérapage yi nga xam ne ñoo ngi koy gis ci biir weeru koor bi ah lu ne am ci biir di sabooti julli ci biir te loolu newul loo xam ne lu objectif la donc li gën a am solo mooy fexe ba wan nit ñi ñenn ñi nga xam ne dañuy du tuddawoo ay jullit ne woor nan te woorunu maanaam li ñuy wax wooru gàlle ak ñi nga xam ne dañuy laxatu di naan ne woor nañ te woorunu ak ñi nga xam ne dañuy feebar feebarlu te feebarunu te ngir bañ a donc moo am ay jikko yoo xam ne mi ngi ci jullit ñi ñoo xam ne nu ngi koy def ci biir woor weeru bu taxawee nu utal ko lay pour jéem a bañ a woor wala pour bañ a bañ a respecter corps bi ñooñu nag ñu mel ni man dañ leen siy bind dañ siy bind ay scénario ngir weer leen ngir war def seen i weer seen i jikko yu bon yooyu nuy def noo xam ne weeru koor tant que médecin waxu la da ngaa feebar waruloo bañ a woor euh, bu fekkente ne da ngay woor wooru gàlle maanaam boo toggee sa kër ne woor nga boo génnee lekk boo ñëwee ne da ngaa woor loolu waruloo mooy li yonent bi naan am na ñoo xam ne ëllëg yomal xiyaam dañuy sonn ànd ndoog way sonn ñi yomal xiyaam nu perte duñ fa fekk dara donc ñun ci sens boobu na ñuy bindee donte am na ñoo xam ne am na beneen gis-gis boo xam ne ñu ngi ciy bind di ci saboté diine islam mo wax dëgg yàlla ñu mel ni man nu ngi koy ñaawlu nu ngi koy ñaawlu carrément di ko condamné malheureusement malheureusement ñun lu bëri duñ si duñ ci dem duñ ci dem peut-être temps yi rek bi critique yi xawee metti trop ci euh, ñi nga xam ne nooy scénariste yi dañuy commencé di bàyyi xel loolu surtout lu jëm ci wàllu diine parce que ñun suñu diine dañ ko umpale ba nga xam ne te dañ si ñime di wax trop donc di ci def ay erreurs yoo xam ne buñ doon laaj comme ni nga ko waxee awlamaaw yi kon loolu duñu ci fekk waaye actuellement nii nag ñu mel ni man ñu ngi jéem a def ay gëstu ba nga xam ne lépp loo xam ne lu ñuy bind la mu laal diine islaam rek dinañ ci toog ak boroom xam-xam laaj ko xalaatam mu wax ko bu ko defee ñu jàllale lool lépp loo xam ne li ñu bindoon dafa dëppoowul ak islaam ñu jéem xool aussi nun koy bàyyee pour mën a doxal li nga xam ne moom la islaam wax moom nañ ko ba parce que comme ni ma la ko waxee rek théâtre jàngale la see éduqué te yaakaar naa booy dugg ci domaine boo xam ne maîtriser woo ko war nga laaj ñi nga xam ne ñoo la seen xam-xam màcc ci côté boobu pour nga mën a am scénario bu taxaw. waaw Sénégal looloo ko looloo ko yàq dañuy ut buzz si loo xam ne jar nuy ut buzz comme ma jox si benn exemple ñoo xam ne ñu bëri loolu leen may buzz mais man bëgguma ko bëggeewuma ko noonu mën naa la jox benn ci sànneex li tax ñëpp xam ko ci ay saaga la commencé woon gars yi yóbbu ko fu rëy rëy moo moo ko may succès bi ku ñuy wax Azou Lô boo góor jigéen la doon joué. ba tey moo ko may succès boobu fu mu toll nu nu di ka nu di ka wax donc Mandoumbe li tax ñu xam ko mooy saaga ndey ay maam wax wax ju ñaaw yi nga xam ne daf koy wax jëmale ko ci ay waajuram yi nga xam ne noo ko jur ak affaire yi nga xam ne yu safaawoon ak civisme la yi muy def moo tax mu am succès boobu Sénégal lu en général looloo fay may succès mais sama ñi nga xam ne dañu dañu opté wu nekk ay jullit nu am benn direction boo xam ne moom la ñuy suivre fa na ñuy jaar moo tax nu jéem gën a viser si affaire dramatique maanaam loo xam ne day yee société bi ci nii gën a bind que ci li nga xam ne moom mooy lépp loo xam ne comédie la wala lépp loo xam ne day jéem a fexe pour nit ki reetaan wala nga jéem a créer benn buzz pour nu yóbbu la fu nekk pour nga am succès noo domaine boobu moom moo tax en général duñ ci mën a duñ ci mën a duñ ci mën a dem waaw parce que ñun dañu am ay règles yu ñu tënk yoo xam ne ku jàng théâtre di nga xam ne am na règles yu la tënk yoo xam ne dafa dafa am foo war a yem donc succès nag bon yàlla moo koy moo koy def mais gis na ne booboo gën a gaaw wax lu ñaaw salte saaga wax wax yoo xam ne mooy loolu wala nga saaga sax président de la république fu ma neexoon su ma ko defoon suba ñëpp xam ma mais loolu du lu gën daal du loo xam ne aw way wu rafet lay doon ci man ak sama njaboot. l'avenir du théâtre sénégalais mën na nekk mën na baax parce que actuellement yàlla dimbali nu ba nu ngi remplacer novelas si parce que gisoon nañ filmu novelas yi ni mu bari woon ci dëkk bi léegi dem nañ ba léegi actuellement ñu ngi dem ba ci ñaar ba ñett ba ñeenti série yoo xam ne mi ngi daw mën nañ ne am na avenir waaye am na ay critiques aussi ci am parce que comme ni nga ko woon ci commencement bi am na ay dérapage donc nag manque de. Euh, sérénité ci li ñuy def la rek mais gis naa ne bu leen corriger ñoom dina nangu xam ne loolu du yoon nu jéem a redresser waat mais gis naa ne am na avenir parce que population sénégalaise bi ñu ngi koy ñu ngi koy consommer bu baax. waaw ñoom ñoom. mais ci wàllu sponsor nañ ne yi nga xam ne ñoo gën a ñàkk teggin te ñoo si li si bëri ñoom ñuy jëm mais ci ñooñu la ñu leen doon que ñoom doo leen mën a critiquer trop. objectivement parce que ñoom dafa am ñoom benn benn benn objectif ñoom bu ñu viser mooy nu ñuy def ba seen produit yu jàll n'importe quel moyen en tout cas nañ am visibilité ñoom loolu mooy seen objectif loolu seen marketing léegi nag gis nañ ne sénégalais comme ni ma koy waxoon sànq lu lu insensé loo xam ne dafa euh, doy waar si la ñuy gën a mën a xool ko loolu ci yoon koy jaarale pour mën ko ci dugal pour affaire bi gën a am buzz seen seen produit gën a mën a dem mais ñoom xooluñu ci ne lii islam bëgg na ko wala islaam bañ na ko ñoom seen intérêt mooy lan na seen produit yi jàll boo doon saaga sax wala nga def yaramu neen seen produit di jàll ñuy am buzz yaakaar naa loolu du leen tax ñu dellu ginnaaw loolu nag comme ni ma ko waxee Sénégal rek moo ci man dara waru noo xaar ba élection doogu a jóg ni wane ne ñoom existé nañ